أولئك القوم لا يشقى جليسهم إذ يكسبون المريدين السعادات طوبى لعبد مريد صادق لهم بخدمة أو بحب أو هديات نالوا بخف الرسول المصطفى رطبا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 yu bare bari la la ci jiitu mooy tasawuf mooy defar xol mooy defar xol génn ci mboolem taq-taq yi ak ràgg-ràgg yi ak tilim-tilim yi dugal ci mboolem jikko yu sell yu baax yàlla yàlla na te bëgg ko ci doomu aadama te lool yi moo lay jegaleeg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo lay mayit nga mën a jege suñu borom tabaaraka wa taala ci la leerug yàlla itam di mën a fenkat ci sa def tëjal li ci sa xol loolu itam buñ loo sunu borom tabaaraka wa taala xol bu set rek la la soxla wax na ne yawma laa yanfau maalun wala banuuna illa man atallaha bi qalbin salim qalbu salim bi nga xam ne moom la yàlla soxla na xam ne yow mal xiyaam loo fa indi lu may moom du la amal njariñ leneen loo fa amit du la amal njariñ lu may xol bu set xol bu set boobu moom la tasawuf di def ci nit tasawuf ci biir lislaam la bokk mos cee génn itam yonente bi moo ko jàngaleel sallallahu alayhi wa sallama daa ci yar saxaaba ya jiitu xëy na tur wi moo yees bu fekkee am na lu ci yees tur wi la moo ci yees te tur woowu noonu mu yeese ci tasawuf noonu la yeese ci yeneen xam-xam yëpp fi ne boo duggee ci fiq fi ne li ñuy wax ci fiq yëpp saxaaba yi masalan xamuñu ko woon waaw baabu sujoodu sahwi nangam ak nangam yooyu noonu xam nga saxaaba yi xamuñu ko waaye daanañ ko dund fi ne tey lu mel ne tey tafsir sos nañ ci ay mustalaxaat yu bare bari mu fassiroon yi nga xam ne moom seeni mustalaxaat la li ñuy ulum ulum ulumul quran masalan yu bare bari ca biir ci lu mel ne tey ni ñuy jàngi alquran rek tajwid ay maddul lazim ak alqalqalaak yooyu noonu xam nga saxaaba yi mosuñu ko xam yooyu ay mustalaxaat la yoo xam ni lañ daa def ma saxaaba yi nañ ko def waaye amutoon tur ginnaaw bi la amu tur naxwu lu mel ne naxwul arabi bii eh, ak balaaga yooyu yëpp xam nga amutoon jamono saxaaba te yooyu xamoon nañ ko dawuñu yàq liñ daa wax lépp dara dëppoog dara dëppoog eh, qawaayidi naxw waaye nag amuluñ ko woon ay tur nga kon jëmmi tasawuf moom dara yeesu ci ci biir lislaam la bokk mooy dëgg-dëgg lislaam itam mooy ruuxug lislaam itam mooy yuqug islaam itam bu ci génnee dara daa desatul ci ci lislaam jooju lislaam joo xam ne ci wér dara da caa desatut xol xol bu taq nga koy nga koy àndee te yàlla soxlawul xol bu taq yonente bi sallallahu alayhi wa wax na ne inna allaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum suñu borom du xool seeni jëm ak ni ngeen mel lool yitteelu ko melaw kaw yi kaw kaw yi yitteelu ko melaw kaw yi nii yitteelu ko ak li ngay sol ak ni ngay doxee yooyu noonu yitteelu ko ak sa sikki mag ñàkk sikki nag yooyu noonu fi ne yàlla xam nga yooyu soxla ko yàlla soxla mooy sa xol nan la mel rek ndax mi ngi ngëm gu dëgër ak pas bu sel ak yéene ju sell ak sori ay kañaan ak soxar ak bañ doomu aadama ak yu ni demee loolu la yàlla soxla ak li ngay jëfit maanaam xol bu mel noonu mooy jëf yu baax xol nu mu mel noonu la jëf yi di mel ndax xol mooy buurub cër yi la la yu baax yi wax lépp lu ca nekk rek mooy seeb ci cër yi mooy seeb ci làmmiñ wi mooy seeb ci eh, saw doxin ak say jëf yëpp loolu moo ci génn moo tax kon tasawuf keroog waxoon nañ ne itam ci biir ñi nga xam ne ñooy dund tasawuf wax nañ ne yu bari ci ñoom rek lay feeñ waxoon na ci yu bari ba àggoon ci lu mel ne gis yonente bi sallallahu alayhi wa ci lu dul ay nelaw loolu it waxoon nañ ci lu bari loo xam duñ ko baamu waaye buñ la maanaam tegtal bi ñu bari dañuy wax loolu luy dalil bi maanaam donte gaa yi ne gis nañ ko waaye luy dalil bi bi bari na bari nañ adilla adilla yi mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa moo wax ci xadis boo xam ne amul sikk moom mi ngi ci Buxaari sayhu Buxaari eh, ak muslim itam nettali na ko ak Abu Daawuda ak Ahmad ak ak ak ñeneen ma xadisu sayidna Malik ibn Abdullahi eh, bi wax man raani fil manaami sayidna xadis Abu Hurayrata bi wax ne man raani fil lmanaami fa sa yaraani fi lyaqda wala yatamathalu cheytaanu bi ku ma gis ci gént dana ma ci ci ay ndax jër sama jëm mana boo gisee ci gént rek moom nga gis léegi nak kañ nga koy gis foofu la werante bi ne lépp ci borom xam-xam yi waxoon naa xiyam ko gis mom, loolu moom kon wax te seddu nañ manam nit ñi ñi ci ëpp ci doom aadama yi ñi ñi gëm ñi gëm yoonte bi di ay julit sunu classe gi ma ñepp fi ne bu ñuy faatu dañuy gis yoonte bi ak lu bok ci moom rek wax na bari fo lañu gëssé léegi nag mu am ñu yalla taw ñeek ñu ñuy faatu dir bu yag ñu gis ko non rek la lool moy moy gattal gi mi ngoog masalan mënees nañu am tektal itam ci benen hadith bo xamni ni amul sikk moy hadithu muttafaq wala Bukhari bukhari hadith bukhari bi waxne ma yazaalu abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu hadith bi wul fawu mu nga tamle ci man aada li waliyan faqad azanduhu bil harbi. man hadith bi yonente bi moko wax waye hadith qudsi la yani sun borom mo wax mo wax sama Jambi, dudain du dañ jagain lu maanaam li may defal nag la ca la ma ca ëppal solo mooy li ma farataal ci moom bu ko jéggee na def ay naafila nag nee di ca góorgóorlu bu yàggee dama koy sopp fa ida ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladi bi bihi wa basarahu alladi bi bihi loolu moo ci itteel maanaam bu ba sopp ko maay nekk déggam bi muy maa maay nekk gisam bi muy gisee maanaam gis boo xam ne maanaam yàlla sëñ bi nga booy gisee ci yàlla man nekk yàlla ngay gisee xam nga loolu lu ne mën nga ko gis maanaam koo xam basaruhu bihi billahi subhanahu wa taala yabsu yubsiru bihi xam kooku moom lu ne mën na koo gis yonte bi waxoon na ittaqu firasat mumini fa innahu yanduru bi nuurillahi maanaam yanduru bi nuurillahi xam ki noor bi ki nga xam ne day xool bi nuuri shamsi bokkut ak ki nga xam day xool bi nuurillahi wa man kaana mayitan fa ahyaynahu wa jaalna lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas ki nga xam day xoola nag bi nuurillahi kooku lu ne maanaam lu ne mën na koo gis moom mën naa gis ni mu mën a gisee adduna bi noonu la mën a gisee beneen adduna bi nga ko aleykum salaam moo tax borom xam-xam yi waxoon naa ne ñu bari ci ñoom ibnu xajar al xaysami ak ibnu abi jamrata ak ibnu alxaaj al maliki borom madaxal bi ak al qastalaani ak al ghazali al imam al ghazali jalaal din suyuti bind na ci tere bind na ci ab risaala ma ngoog boo xam ne bu am solo tanwirul xalak fi yati ru'yati nabiyi wal malak ma kon loolu seetlu nañ ci tasawuf ci mu tasawuf yi rek lay feeñ man naa koo jeexal itam masalan karaama xarbaax xarbaax daanaka ci tasawuf rek ci mu tasawuf rek la des benn ñoom rek ñoo ko fi gëm sax nag ak ñeneen xëy na wala siyaa yi ñoom gëm nañ ko waaye ñi nga xam ne gëmuñu xar baax fa lu fekk xar baax du feeñ ci ñoom mukk xar baax te xar baax yi moom moom maanaam ku mel ne mbokk di mu baax dëkk fële ci gànnaar mooy xam lu Dal Misk bind na teer ci sëñ boo xam daca dajalee xar baax baaxi sëriñ bi karaamaatu Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu téere bu mag a mag a mag la ëpp na téeméeri xat ne mat naa xaw naa jege ñaari téeméeri xat nga xam ñaari faslu yu njëkk yi da ciy wax xar baax yi nekk ci maanaam li alxuraan li ci dikk ci ay xar baax yoo xam ne du ay yonent lu soxna Mariama nga xam ne du yonent te gis yu baax yu bari feeñ ci moom ak ñeneen ak ñeneen ak xarbaax yi feeñ ci ci ci sunna si yonent bi xadis yonent bi yooyu doog ak nit ñu baax ñi doog a indi nag xar yooyu nag. nga xamne mom xam nga liñ baxo am li bax liñ liñ bax li bax am li nga xamne mom lañ baxo xam lolo bu fekkee daa soppiku ci anam go xamni ka ko soppi ka tax mu soppiku nituk yalla la ko xamni kuy dundu eh, alquran ak sunna la di di ab julit bu leerug julit te ragal yalla lolé la tuddi xar baax bu fekkee taxaddi moo ko waral nag ci lañ koy tudde mujiza te loolu ab yonent rek rek moo ko jagoo xar baax moom ci waaju baax lay feeñ xar baax yooyu nag al al awliyaaw adillatu tasxiixi noonu la ko sëñ bi waxee maanaam diine sax sax lay tax ñu xam ne diine ji diine ji wér la mooy mooy mooy mooy awliyaaw yi feeñ ci te awliyaa yi awliyaaw yi bokk na ci seen sifaat yi gën a euh, yiñ gën a ràññee ko mooy mooy tasarruf yàlla da may tasarruf ci kaw kawnu bi loolu nag fi ne incha allah dinañ ci wax lu gën a yaatu bu ñàggee ci bunt bi wax ci xar baaxi sëñ bi ci ci téere bi incha allahu taala dañ ci ni misaar yu leer yu bari bu soobee la maanaam xar baax moom noonu ñii nga xam ne ñu dund ci biir tas moom daanaka dund ko dund ko sikk moom ndax da koy dund de bari yoo xam ne yow da koy dund ay mbir yoo xam ne da koy dund xam wër la lii xar baax rek la maanaam bokkut ak li baaxoo am loolu nag ka sori wala ki nga xam ne matériel dafa dafa dafa dafa matériel xam nga da am nit ñoo xam ne dañoo sori yàlla dama la jégal maanaam dañoo sori dañu dund adduna gi ak adduna dafa dafa kii nga xam ne lu ñu gis rek fi ne xa maanaam yàlla lañ ci mujj xalaat moom maanaam dañ koy firi prime adduna moom fi boo gisee loolu am na ci ci lislaam am na ci bindkat yi nii fi ne cheikh Mouhamad Saïd Rama a Saïd Ramadan al Bouti laa gis ci fiqu siira yaakaar naa ci tabaxaat yu mujj yi mu wax ne ma mas nañ koo fay ngir mu bind siira ngir ni ko yenn gaa yi di bindee gaa yenn yi eh, ñoom bañ tudd ay tur di tooñ <laughs> waaye war nañuy bind siira ñoo xam ne ñoom yonent bi duñ ko saxalal genn karaama ku mel Cheikh Mouhamadou Abdou moom nga xam ne tey masalan ba ci eh, tayran ababila tarmihim bi xijaratin sulul fiil maanaam abraha ak la ci xawoon ñoom dañ koy firee ne loolu feebar la bu feeñoon boo xam ne moo nekk ci moo feeñ ci biir ci biir ci biir eh, maanaam armée armée bu Abraha nga xam xar baax moom duñ ko duñ ko tudd fenn moom yonente bi moom ab xar yi wax borom ku amoon xel la raw na jamonoom teg na fi ay loo xam ni ba léegi adduna bi dëbaguñ ko ci wàllu atte ak nangam ak nangam waaye nongul ko xam nga yonte bi moom lim doon weesu na yooyu maanaam yonte bi ab nabi mooy koo xam daan yàlla nee na <laughs> waaye jibril moo fi ñëw wax mu nangam yàlla nee na nangam nangam xam kooku moom weesu na boroomu xel ak ku yeewoo ak yu ñu mi nga kon moo tax xar baax boobu ba tey benn la ci liy wane ne ñoom ñi ngi ci dëgg itam lay wane ndax awliyaaw yi dañoo bari ci seen biir ñoom mu tasawuf yi nit yàlla yi nga xam ne ay awliyaaw lañu ñu yàlla te yàlla teral leen xam nga karaama nit ñu baax yi dañuy wax ne ikraam rek la te ñom jublu duñ ko jublo feñal du jégué ni parce que tay bo boo ku bénn sëñ mag bi xar bax yi feñé ci mom yépp du lum jublu day dem ba xap xat dik ay nit nara wayofal, de nga diiné yalla ji yalla feeñale ci mom xar bax du démé non lay don melni ne julli géej gi masalan nga xam ci xar bax yi gëna fess té wër lool té sax ne sëñ bi def nako waaye gis nga moom day wax ne ba mu koy sànni booba booba maanaam dana lab ak du lab loolu nekkutoon ci xelam moom gis na ne waxtu wi jot na aaye nañ ko bërëb bi faw mu julli maanaam ngëm gi am la ko yàlla defal teraangay xamal ko ne ko suuf si ak maan géej gi ak ak su jéeri ji ñooyam maanaam yëpp yàllaa ko yor fi ne li nu fi téyee ci kaw suuf nii ba ba duggun ci suuf mu maanaam moo téyee jën yi ca ca ca biir ca biir géej gi Mana gej fi ne bu gisee bato bi fi ne la ko fa téye du dara bato du dara lu may ay dénk ak i pont yuñ yuñ boole la ko fa téye nag lu may kattanu suñu borom suñu borom moo téye lépp li tax nga lab ak nga ñàkk lab lépp ci kattanu suñu borom <laughs> maanaam aqidatu ahli sunna mooy fi ne tey sawara sax dañu am du lakk mooy dañu ne indaha la biha mooy sawara du lakk waaye nag yàllaay lakk <laughs> maanaam sawara wi ak lakk dañoo lëkkaloo ba nga jàpp ne sa sawara wi lakk fekk maanaam eh, bis dana ñëw sawara wi war a lakk te du lakk ndax Sayyidina Ibrahima dugal nañ ko cib taal te lëkkul xam nga mi ngoog kon jëmmi xar baax xar baax nag man daanaa wax lu bare bari ne mboolem li ñuy dund lépp xar baax la te yëguñu ko maanaam dund gii ni ak fii ñu nekk nii mu suuf si yu ne ni ak nekk gi ñu fi nekk loolu loolu lépp xar baax la wene <laughs> ndax nekkuñ ci dara lu may bul buy wër wëndeelu ci biir jaww ji nga xam ne kenn xamut lu lu lu ko téye muy dem ak dikk nga xam ne li tax ñu mën fee ne ci benn benn seconde rek wala ñaari minutes yoo xam ne nag ñoo ngi ci jàmm lii daje ngir ñu mën fee ne loolu yu bare bare bare yoo xam ne nose googu yi noonu loolu kattanu suñu borom rek moo ko moo ko mën lépp xar baax la moo tax <laughs> mi nga kon loolu ci ñoom rek lañ lañ lañ ko lañ ko gisee sëñ bi nag tegoon ci والجيل الجديد بسبب الجهل وقف من التصوف موقفا صلبيا فألقى عليه الشيخ الخديم اللوم المشوب بالنصح مبينا لهم ولا له المنافع الكامنة في التصوف معنا جمعنا جمعنا سرين بي يبارد أن يؤمن لهم التصوف ورسم بي لأرى لأرى لأن التصوف لأرى لأن يتم جارين يتنى لأن يؤمن لهم نمو كوي تكي نمو كوي جابي نياري مرلا ma ñaar ñoo umpale tasawuf am na ñoo xam ne ñoo nekk ci biir ta suuf ba pare ta suuf daa mel ne ñooñu nag la sëñ bi doon waxal ndax jamono yi sëñ bi yaakaar naa boobu wahabi yi ni ñëwaguñ fi boobu bëreeguñ fi booba ñi fi nekkoon daanaka ñëpp ci ay tarixa lañ nekkoon moo tax nit ñi booba ñu ngi ci tarixa di ami sëriñ su ko jëbbalu waaye nag jëmmi soobu wuti yàlla wuti yàlla moom loolu maanaam dawuñu ko def comme nii xew rek gis ngeen dëkk bi nii waaw ñun ñëpp fi ne ay suufiyanke lañ waaye fi ne dund gi ñuy dund sori na lool ak ko suufiyanke waaye ñun dañ fexe bay julli rek di woor ni comme ni ko julli ñëpp defee waaye leneen loo xam ne suufiyanke koy def suufiyanke yaa ngi koy def ne tey dëdd boo boo gisee ñiy jàng fii te xaw a jëm ci dëdd ak dund gu ñagas daanaka dañuy mel ne ku tumuranke ci biir ci biir nit ay dëdd lañ leen xam ne mel na ñoom ci nit fekk loolu ñoom lañ ne loolu mooy aslu mbir mi mooy maanaam ñëpp ci lañ waroon ne <laughs> mooy woy fal àdduna ci misaal mi ngoog mi ngoog mi ngoog kon jëmmi jëmmi ñi nga xam ne ñi ngi ci biir ba pare nag xamuñu li ñu ne daa mel ne ñoom la sëñ bi doon doon waxal nga xam ne fi ne tey kii sóobu di góorgóorlu ci ci ci yoonu yàlla sax dañ koy sikk dañ koy sikk rawatina nag mom budé manam manam maanaam bu jéeme feeñal dara ci lo xamné da ko gis wala lu gént wala ki dañ jàpp ne saa day am lu ñu woté lo xamné <laughs> de ngok ngok da mel nak ñoñu nak bo sétlo la yaakaar na ñom la señ bi gëna jëmele don nak wahabi yi am nañ ci cër ma wax ji ni am nañ ci cër waye ñé le le le gëna jëm ci ñom motax señ bi mom lam wax moy qultu fa jiilu za zamani jahilu ilma tasawufin fa xayran ahmalu nee na ji mas gi mooy nit ñi rek dañoo maase umpale tasawuf moo tax yiw wu rëy nag eh, raw ñu neenal ñu sànq yiw wu rëy is jahilu bi kawnihi sabila li xadratillahi fa xaabo jila maa dañoo réere ndax dañoo dem ba la ne tasawuf rek mooy yoon wi nga xam ne ci nga mën a jaare dem ci yàlla ah lislaam ni ma ko waxee ay ay xaaj la daa loo xam ne jëfi kaw yi lay lijjanti ni ngay julleeg ni ngay wooree yooyu noonu mooy fiq mooy islaam iman mooy gëm yàlla nag maanaam al al li ñuy wax al tawxid mooy yi nga xam ne luñ lay wax la ay tënk la ay maanaam mbiri xel la daal yàlla am na li tax am na mooy moo sàkk lépp te kenn sàkku ko niñ ko waxee maanaam di la wax adilla yi li tax li waral ne li li tegtal ne yàlla dégg nga am moo sàkk lépp mooy tasalsul maanaam mënta ne mustaxil la dafa jomb xel ak li ñuy wax rujxaanu ak bi duuni mu rajjeex ñoo la ñu ko jàngee ak li ñuy wax dawru yooyu noonu yooyu dañoo dañoo jomb xel nangu ko xanaa xel nanguwut mbir yi nii nekk fin rek lu ne di jur morom ja te amuñu fuñ tàmbalee loolu xel nangu ko itam xel nangu ko mooy fekkee am na fu mu tàmbalee itam la njëkk a judd loolu it mu juraat boppam loolu lu xel nangu ko <laughs> maanaam dara ba njëkk a judd rek te loolu fi na nit nit yi maanaam scientifique yi nangu nañ ne adduna bi am na fu mu tàmbalee lu ñuy wax nazariyatul infijaaril kabir moom lañ gën a nangu ci xeetu nazariyaat yi am yëpp nga maanaam ay milliards yi milliards yi at wala millions millions yi at ci ginnaaw loolu moom kenn mën laa wax la fa xewoon moo tax ay nazariya rek moo am nazariya mooy théorie nit ki di teg ay ay ay ay ay nattuwaayam ba jàpp ne lii kat xëy na nii la war a defee nattuwaay yooyu nag am na ci yoo xam ne yu yu xereñ lay doon na nattuwaay yooyu nag ak nazariya bi ñu ci gën a jàpp na mooy nazariyatul infijaaril kabir mooy adduna sépp ci ben atom moy ben dara bu ndaw la nekkon bu ndaw mo jekkeeke rek de nga am juddu fet mel ni in explosé mo jur li nak li nga gis lepp comme ni nga xamne ne fep fep fepp pep boko jiyé ni mi juri ak garab nga gis pankasi non non la bi tambalé ben fep wu ndaw mo rek fetax da nga am mbir yi yëpp tàmbali nga gis loolu nag loolu nag yéenewul maanaam loolu xew noonu indi nose gi nose gi xam nga loolu désordre la désordre mënta jur ordre mënta jur loo xam lu nose lu mel nii mi nga yooyu nag mooy li nga xam ne mooy taw tawxiidu nazar yi dañ lay jàngal yàlla niñ koy gëmee ak li war ci moom ak li jomb ci moom ak boo ba gëm ne yàlla am na am na sifaat yoo xam ne mënta ñàkk ci moom ak sifaat yoo xam ne moom da ko war a jomb ndax loolu day maanaam sifaat yi lot ak ñàkk kàttan ak yu deme noonu yooyu yëpp xam nga maanaam da ko ak nuróob dara doomu aadama yi ak mbindeef yi maanaam loxo yëpp xam nga nazariya la loolu tawxiid la waaye nazariya la jàngale itam malayka yi na leen di gëmee loolu moom naqal lañ ko jëlee mooy yàlla boo gëmee nag gëm yonente bi itam yonente bi dalaa joxub téere téere boo xam ne ci leen jànge yeneen yoo xam ne moom mënuñ caa teg baaraam muy yomal xiyaam la fay xew ak malayka yeeg jinne yooyu doon xam nga waaye loolu lépp moom la ñuy wax tawxiid nazari dafa am beneen tawxiid nag bu ñuy wax tawxiid al irfaani nga xam ne mooy boo dundee tawxid nag ba àgg ci xaqaayiq yooyu loolu mooy tasawuf mooy uloomi mooy nga dund lislaam ci anam gee imaan ak islaam di ko jëfe say cër te gëm lañ wax mu dëggu ci yow loolu nag boo koy dund ci kaw jaamu yàlla yi ñu wax ni eh, day mujj nga àgg nag ci loolee du doon kumpa ci yow mooy li ñuy wax euh, ilmul yaqin ak euh, xaqul yaqin ak aynul yaqin waaw mi ngoog ñett yooyu xam nga mooy day nekk xam-xam ci yow mujj mi ngi mel ne tey boo amoon mbokk moo xam dafa génn réew mi suñ la nee ñëw na agsi na Sénégal ñibbisi na te kala ko wax di ko wér loolu mën nga ko gëm ndax xibaar la boo xam ne bu jóge fu wér la mën nga jàpp ne ñëw na waaye loolu bokkut ak nag nga dégg ko ci téléphone boo ko déggee téléphone loolu mu xàqul yaqin loolu moom xam nga ne lii moom xibaar bu wér na moom boo ko déggee téléphone mun day agsi na bokkut ak nag nga nga jàndoog moom nag nga jàndoog waaja nag loolu mooy aynul yaqin ay maratib la yoo xam ne jëmmi tawxid foofu maa jëmmi tasawuf foofu la lay yóbbu maanaam yee nga xam ne ay xam-xam la rek yoo xam ne mbiri xel la woon da lay yóbbu na nga dem ba jàndoog moom mooy li wax ne isjahilu bi kawnihi sabila li xadratillahi fa xaabu jila moo tax tasawuf lim lay may tasawuf benn samara la samara la samara bi mooy maarifatullahi subhanahu wa taala da lay may nga xam yàlla ci anam maanaam mboolem li ñuy jàngale nii nga xam ko ci anam goo xam ni goo xam ne day wuuteeg maanaam da ngay mel ne lu ci rek sa bët ka annaka taraahu ni ko ni ko sunu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa in lam takun taraahu fa innahu yarak loola nag tey xam-xam bu am solo la ndax fi ne tey loolu yi loo ca xam maanaam xam-xam boobu loo ci am loo ca am rek ëllëg mooy wane fa ngay fa ngay toll ëllëg mooy wane sa tollu tolluwaayu ëllëg ci yomal xiyam <laughs> masalan tey eh, gone gu ndaw boo ko laajee lam gën a bëgg lam lay wax ay fukki dërëm lay doon ak juróomak ay tàngal ak yooyu dama noonu loolu mooy lim gën a am lim gën a xam-xam nga te ki nga xam ne itam dundut tasawuf itam nga xam ne yii gars wax xamuñu ko itam moom it bi ne ah, yow xam la ma rek naa dugg nekk ca lekk ya naan ya am kër ya dootuma dee naa loolu moo koy moo kii nga xam ne loolu moo ko fay neex fekk am na yeneen lillazina ahsanul husna wa ziyaada ziyaada boobu nag fi ne kenn xamul fu nu mu yem borom xam dañ ko dañ ko firee an nazar ila wajhi rabbina subhanahu wa taala waaye mën na mën na kooku parce que te suuf nag loolu lay may da lay tax nga xam nag loo xam nga xam yeneen i mbir yoo xam aafaq la lay ubbir yoo xam ni ëllëg yomal xiyam mooy tax sa sa daraja mën a gën a kawe foofu seet nga ne bëgg wax waaw li nga xam fii tey nii mooy moom moom ngay mën a dund foofee waaleykum salaam wa rahmatullah mi ngoog kon tasawuf moo tax mu am solo te te te xam-xam yi leen am na ci aleykum salaam wa rahmatullah xam-xam yi leen am na ci mooy jëmmi xam-xam yi da ci am yoo xam ne fii la ñu am bu gisee ku mel ne imaamul Ghazali imaamul Ghazali bi mu wàññi xam-xam yi nga xam ne xam-xam yi adduna la da ci boole fiq maanaam fiq da ko boole ci ulum addunyawiya xam ne ba am xam-xam yoo xam ne xam-xam yi adduna la mel ne tey faj médecine médecine moom xam nga fii la yem ndax yow man xiyam kenn du fa feebar dañ lay faj ko boobu xam-xam moom fii la yem moom ndax fee amul ku ñuy faj moom maanaam yow xam ne ñëpp dañuy wér rek amul feebar feebar amul sa dara du metti amul dee itam kon xam-xam boobu fii la yem xeeti xam-xam yooyu nag ko mel ne imam Ghazali da cee boole fiq masalan fiq itam <laughs> loolu it dafa naqari borom xam-xam yu bëri ci borom fuqaaw yi waaye lu lu lu yenn maanaa la mooy fee itam ay julleeki woor xam nga amu te fiq yooyu la lijjanti maanaam julli gi bu yàqoog naa nga noo koy defaree te fee amatul julli moom par benn xam <laughs> kon boobu xam-xam fii fii fii léegi nag xam-xamu gaañ nag moom moom moom moom mooy jëmmi suñu borom mooy seen yitte moom la xam ak li aju ci moom ci ay mbir yoo xam ne nag moom moom lu ñu lu ñu dund lay doon mi moo tax sëñ bi wax ne ñi nga xam ne ñoo neenal <clears throat> xam-xamu tasawuf neenal nañ yiw rëy rëy rëy rëy rëy is jaxilu bi kaw fa xaabu jiilan moo tax ñu maanaam luñ mën a am rek amaguñ dara man ah, li yi wut ni muy nit yàlla li feeg àggoo ci yow àggoo fenn maanaam amoo dara daal maanaam yàlla moom boo ko ñàkkee ñàkk nga lépp waaw ah, ñàkk boo ko amee itam ñàkkatoo dara ci kaw suuf donte amoo benn dara ci kaw suuf itam ñàkkoo dara man faqada allaha maada wajad maada wajada man faqada allaha la ibnu ataillah chikandari wax wa maada faqada man wajada allaha mi ngoog wa jahilu bi kawnihi xayra duxar yowma taxaabuni idil hawlu xadar ba tey bokk na ci umpale gi ñu umpale tasawuf lim leen jural mooy maanaam mooy ngeen ci ngeen ji li nga yóbbaale yowmal xiyaam mooy tasawuf ndax tasawuf day lijjanti sa biir ne yowmal xiyaam mën nga faa dem ak julli yu bari woor yu bari te fekk sa biir dafa taxoon yow da ngaa iñaanoon masalan wala da nga rëy da nga yëg sa bopp da nga jàpp ne yaa gën ñëpp boo fa demee yomal xiyam fi ne dañ la duma duma yu métte métte <laughs> yooyu noonu boo ko yóbbaale yomal xiyam waaw tasawur sa biir googu lay lijjanti daru zahiral ismi wa batinahu xarama fawaxisa ma dahara min haw ma batan maanaam jëmmi biir biir biir gi moom lay lijjanti moo tax li sëñ bi wax ci ca biir masalik ne ki nga xam ne dafa neenal fiq fii lañ koy dumaa moom ndax borom xonxo yi moom waa dañ koy àtte mën nañ ko rey sax nag waaye ki nga xam ne dafa neenal tasawuf moom ëllëg day a jafe-jafe ndax biiram mooy taq te du ko yëg lii muy lijjanti lii muy lijjanti daa mënta ñàkk masalan ci ci ci ci ak dund wa jahilu bi kawnihi xayra ulum yufnil fata umurahu fihi umum maanaam bokk na ci neenal tasawuf li mu leen jural itam mooy réere ne tasawuf moy ngën ci xam-xam ni maanaam xam-xam yëpp mo ci gën ndax ni ma la ko waxee léegi moy xam-xam bo xamni day weesu aduna dem ba alaxira xam-xam yi ci dess yëpp nak bo len seetloo duñu génn aduna ndax lañuy lijeenti fi fii la bu dee fiq julleeg ak ay tak soxna ak ak miraas ak yoy yëpp fi aduna la yem bu demee yowal xeyam yoy amatu fa bu fa demee yoy yëpp amatu bu dee wàllu médecine li muy am am solo te am ba lool fi ne tey fii la ndax fee amul ku feebar boo demee bu ñëwee fee kenn du feebar xam nga ñëpp dañuy wér rek kooku du am médecine boobu maanaam xam-xam boobu tu la njariñ foofu xeet xam-xam yi ci des yëpp balaaxa bii nii ak luxal arabiyya ni ngeen ci sonne fii jàng fi ne la <laughs> ne boo dee yowul xiyaam yowul xiyaam ni ñuy communiquer maanaam taxaatur la gën a jege mooy nit ki mën ngeen a mën ngaa bañ a nepp mën naa bañ a ñeppi làmmiñam te li muy muy wax ak yow maanaam mën ngaa noppi mu noppi ngeen waxante ndax seen ñaari xel yi wax li ngay xalaat da koy gis da koy xam yow it li ngay xalaat <laughs> mu gis ko xam ko loolu ajiwul làkk yi maanaam loolu moom làkk boo mën a dégg rek su dee da ngeen mën a communiquer ajiwut yi làkk yi fii la fii lañ ko ajo <laughs> moo tax xam-xam boobu it dëgg léeg nga gis yoo xam ko jàng ñaar fukki at ak nangam du fekk <laughs> mi nga xeetu xam-xam rek boo ñëwee ci ci ci lan xeetu xam-xam yëpp rek waaw tawxiid bi noonu maanaam foofu moom bu ñu fa dee ñëppay gëm ñëppay xam yàlla moom ñeneen ñi gën a weddi yàlla bu ñuy faatu fa kashafnaa anka ghitaa'aka dañuy te la xamee ne yàlla am na moom dañu daa gis beneen adduna be ci la ñuy xam bu wér na yàlla am na moom dootuñu ko sikki sàkkati moom moo tax tegtal yooyu nga xam ne moom la ilmul tawxiid an nadari di teg tegtal yooyu fi ne daanaka ba seetlu fii la xaw yam ndax nit ki buy faatoom day daal di gisaat moom maanaam malayka yi day gis gis da leen di gis gis beneen maanaam uh, aalamul barsax xam ne nag yàlla am na moom loolu mu dootu ko sikkatiw moo tax gis nga ñi bëgg a faatu toujours dañuy bëgg a dellu gannaaw ak bëgg a <coughs> lijjanti ba tuub ku mel ne firaw na gis nga mu ne bay waaj a lab <coughs> maanaam dafa dafa bëgg a a tuub waaye yàlla ginnaaw moom dundam gépp da ko sànq moo tax làmmiñ ñu topp ko làmmiñ ñu topp ko nu mu ko waxeeti maanaam ba muy wax moom dafa wax maa ngi gëm ki nga xam ne moom la waa banu Israel a gëmoon waaw laa ilaha illa alladi amanat bihi banu Israel nga xam ne làmmiñ waa ko ci topp waaye moom bëggoon naa bëggoon naa tuub masalan ñi waaj a faatu ñëpp noonu la mi nga kon jëmmi xam-xamu tawxiid boobu it noonu boo seetee fii la yem xam-xam yi nga xam nag mooy mooy mooy moo mooy mooy dem ba yowmal xiyaam mooy xam-xam boo xam dafa aju ci suñu borom tabaaraka wa taala te mooy xam-xam yi tasawuf yi mi nga wa kawnihi wa jahilu bi kawnihi istiqaama wa manihi lfata min al malaama waaw mooy xam-xam boo xam ni ñi ko neenal bokk na ci li mu leen jural mooy umpale ne istiqaama ci lañ ko mën a amee istiqaama mooy mooy jub xocc istiqaama mooy karaama gi gën a rëy nag waaw karaama gi gën a rëy mooy istiqaama loolu suñ tubaab loolu la wax karaamatul an laa yansiya fi zahirin wa batinin onsiya maanaam bañ a mooy yàlla ci lu fés ak ci lu nëbbu loolu mooy karaama gi gën a rëy loolu suñ moo tax ni maanaam eh, bi anna al istiqaama nihayatu salaahi wal karama loolu suñu wax ci maanaam karama gën a rëy mooy istiqaama karama ay xeet la am na karama yu fees mooy dox ci ngelaw yeeg ak dox ci dox ci ndox ak yu demee moom njabarkat yi ak kii dinañ ko man waaye karama gi gën a rëy nag mooy istiqaama masalan jub xoj ci bañ a yàlla ci lu fees ak ci lu kii ndax sa bakkan nga man koo not ci ci tënk ko ci li neex yàlla nga xam du ko génn mukk loolu moom moo gën a jafe moom loolu mooy li gën a jafe moom nit ki mën naa baax ni ay fan ay weer nangam nangam waaye day jekkeek rek bakkanam yëngu mu def ay mbir yoo xam ne <laughs> ginnaaw mën na ko rëccu moo tax nag jub xocc nag bañ a jàdd loolu mooy karaama gën a rëy te istiqaama boobu nag lii la koy may maanaam tasawuf maanaam da da tàggat ci mu yomb la nga xam day mujj yow li neex yàlla mooy doon li lay neex ya jaacilan hawaaya fi hawaaka nga xam ne yàlla mom maanaam moom moo lay ñor yeneen yi sax dalay sof yeneen yi nga xam neexut yalla ni ak yu xaraam yooyu day mujj yëpp dalay sof nit ki buy buy buy gor gor lu ci lu bax di di tagat ak di jihad ak bakkanam day mujj dem ba aduna ci moom da koy sof ak yu bare bare yu mu bëggoon nga xam ne dara dut la sawata ci aduna ab way la bo xamni bakkan boobu mi ngi wëlbatiku te àggagut nag bu demee ba àgg nag masalan ci ci ci set ak leer ak eh, maanaam eh, set wecc boobaa nag dootu yëgati sax coono moom maanaam diggante bi mën naa am coono nag moom diggante bi nga xam ne ci ngay jihaad ak sa bakkan te nooyagut nga xam ne mi ngi bañ yenn yi waaye léeg rek mu del ci waat ngay jihaad ak moom di xëccante wala dina jaahadu fii na la nahdiyannahum subulana maanaam ñooñu yàlla dañ xëcc bu la xasee ba xëcc nag sa bakkan bu da nga koy moom bu nag lu neex yàlla kese moo koy neex nga ne li naqari yàlla yépp da koy naqari itam lu xaraam da koy da koy soof moom waaw àdduna itam dara dootu ko ci saf itam leen rek moo ko ci saf mooy jataay yi ñuy tudd yàlla ak julleeg lu baax ak lu euh, tudd yàlla ak xeet yu deme noonu nga xam dafa aju ci suñu borom ak nit ñi nga xam ne nit ñu baax lañ ñooñu rek lay bëgg a jataay nga xam waaye ñi ci des ñëpp daanaka du sawal sax toog a ñoom mi nga loolu nag jihaad boobu yi nag moom xam nga ci tasawuf moo koy jàngale te loolu mooy mooy istiqaama bi moo xoon waaw mi nga jihaad boobu nag am na am na diggante soo xam ne moom nit ki bu amatu muñ dëgg-dëgg day dëpp ndax yow danga ngaa ci bàyyi sa demb demaat ci leneen dem dem maanaam da ngaa dogu ci bàyyi adduna dem ci yàlla loolu nag ñu mel ne sa sa sa yére yi nga xam ne moom nga yàgg sol ba ngay gone boo màggee tuuti xam nga yére yi du la jot boo ko solee xam nga day xat ci xataay boobu nag moom la moom la bakkan waaye yow lee nga nekkoon moom bëgg nga ko bàyyi moom dem nga itam ba bàyyi nga ko itam boo ci bëggee dellu rek fi ne xeex boobu ne loolu mooy jihaad jihaad jihaadu nafsi moom la Sëñ Tuubaa wax ne hada la amri yal jihaadul akbaru ànd ak giñ ci yàlla ne mooy jihaad ji gën a rëy kon loolu moom bunt boobu foofu foofu foofu la ko sëñ bi yemale sëñ bi nag ca masaalik wax na ci yu baree bari ci yii nii waaw wa jahilu bi xawsihi istiqaama ak wa baaduhum lil xeqdi xayru murtadin loolu moom wax na ci yu baree bari loolu moom lii moom mën nañu wax ne geneen ñeneen ñee ko moom waxoon naa ne ñi muy wax fii yëpp dama yaakaar ne mooy ñi nga xam ne ñu ngi ci biir tasawuf te xamuñu tasawuf dunduñu ko itam ñu soreek moom ba ku sóobu dangay ngay da ràññeeku ci seen kanam da ngay ràññiku seen kanam te mën nañ sax sabu di la ak di ngir ñàkk xam loolu moom te fekk ñoom it ci biir tasawuf lañ ne ay murid lañ masalan wala ñu ay xaadir wala ñu tijaan waaye nag ñi nga xam ne itam ñoo umpale tasawuf itam ci jamono jii ñoom ñeneen daa judd moo ñu tudde ay wahabiya masalan wahabiya ñoom ñoom boo gisee sëñ bi lam yeneen yam yam ca tegaat ci ñi nga xam ne ñoo umpale tasawuf yooyu moom man mënees na mënees naa jamtal masalan xawaarij yi xeeti xawaarij yeeg ak wahab yeeg salafi yi nga xam ne ñoom moom tasawu dañ ko umpale moom dañ ko xamul te la tax ñu xamuñu ko mooy yañ ci diingat ay yenn mbir lay doon benn tur wi lañu la ñuy diingat te tur tur du uh, amul solo masalan uh, borom xam-xam yàgg nañu wax ne la mushaaxata fil istilaax tey nun dañuy def loo xam ne sujjóot lañ koy tudde waaye bukkut ak sujjóot bi xaraam sujjóot bi xaraam ci julli lañ koy defee mooy sa cër yëpp day tegu tegu juróom-ñaari cër mooy tegu ci suuf loxo yeeg sa tànk yeeg sa yëpp tegu ci boobu yàlla rek lañ koy defal waaye lii nu def noonu dañ ko tudd si yoon waaye fóon loxo la mi ngoog taqbilul yedd la taqbilul yedd nag dañ sunna la ndax yonente bi dañ ko ko daa defal loolu am na xaddis yu wér am na mu xaddis eh, boo xam ni bind def na ci boo xam ni indi na ci loxo xaw a jege ñeen fukki xaddis yoo xam ni yëpp maase wuñ masih wuñ jagadi ibnu Hajar asqalani asqalaani wax na ko ci fatxal bari ak yeneen yeneen yaakaar wax ko ci bi wala feneen kon jëmmi taqbilu yedd nun moom la ñuy def waaye tur wiñ ko jox bokkut ak turam ñun sujoor lañ ko la ko ñenn ñi am na ñoo xam ne tamit yàgg def ni xëy na bu yàgg ñu koy teg fii rek <laughs> loolu it ba taxul mu haram <laughs> parce que tur du mbir ba du wala wala mu dagana la bëgg mu ne tey bideelub sàngara boo ko jëroon tudde ko kireen masalan wala aynu aynu rahmatu bi bi ni fi ne du tax mu dagan xam nga maanaam tur du daganal mbir wala rahmati boobu itam nga xam ne biteelu biteelu ndox la boo xam ne bu kii la boo ko tudde woon tur woo xam turu sàngara la itam du mu xaram xam nga maanaam tur moom du daganal lu xaram te ci jamono yi euh, ci jamono yi jamono yi jamono yi yónnante ba sallallahu alayhi wa sallam ak saxaaba yi bu ñu seetloo xeeti xam-xam yi ci des yépp noonu la demoon mooy jëmm jaa nga fa woon waaye tur amu ko woon tur amu ko woon jëmm ji nangoo ma nga fa woon mi ngoog masalan naxwu naxwu ginnaaw yónnante bi lañ lañ ko sos naxwu neen ko xamee ginnaaw yónnante bi lañ ko sos am ñu ne Seydina ali jamono Seydina ali ibnu abi talib moo digle ñu sos ko ci yenn wax yi waaye lu mën na xew masalan saxaaba yi ñoom xamoon nañ xawaid naxw waaye nag mustallax yi nga xam ne dañ ko sos gën seen ginnaaw ñoom fi ne boo leen buñ boo leen ko waxoon tey duñ ko xam ay chifal mushabaha ak al mabniyu yooyu loolu ñoom saxaaba yi xamuñu woon yooyu loolu mooy lan waaye nag daanañ ko jëfandikoo ah daanañ ko jëfandikoo lu mel ne balaaxa masalan nga xam ne tey moom lu ñu sos la ay majaas mursal mi nga ak istiaara ak kinaaya xeer yooyu noonu loolu boo ko woon saaba yi duñ ko xam ndax seen ginnaaw la soso waaye nag daanañ ko jëfandikoo daanañ ma wax joo xam ne yii yëpp ma nga ca seetlu nga ni ma masalan xam fiq masalan da ngay gis buntu buyu baabu buyuil ajal xam nga loolu saaba yi xamuñu ko woon buyuil ajal ak nawaqidul wudo masalan buntu yooyu yëpp fi ne ak mustalaxaat yooyu seen ginnaaw lañ ko sos waaye ñoom xamoon nañ lan mooy yàq jàpp masalan waaye nii ñu ko tuddee nun ñu loolu loolu amu amutoon maanaam mustalaxaat yi amutoon bi boobu dajeegutoon bu dee xadis noonu xadis itam gis nga fi mu ne alxadisul mursal ak xadisul mawquuf xadisul marfuu al maqtu xadisul garib naa yooyu xadis saxiix xasanun ak sahihun li ghayrihi hasanun li ghayri yoy yeb sahabi yi bo len ko waxon tay ko ci ko ko waxon tay bi nag ñom du wax na yoy mom li nga ni ne kenn xamul lu doon maanaam ndax loolu xamuñu ko woon waaye nag daanañ jëfandikoo eh, manam hadith yu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam manam jëmmi xam-xam yeb mi ngi fi woon waaye amuloon ni tur mi ngok bu ni ñi jàngé alcorane waxon nako momit lu mel tay ñi gëdax ko na jàng alquranul karim mu Seydina Ubay ibnu Kaab Zeyd ibnu Saabit ak Seydina Ali ibnu Abi Talib tey boo leen laajee al maddul lazim maddul lazim xam nga ñoom ak maddul maddul lazim ak maddul badal ak xalxala ak idgaam idgaam bi xunna yooyu noonu yooyu moom dawuñu ko lijjanti ndax xamuñu kon te daanañ jàng alxuraan ci anam ga nga xam ne ci la ahkaam yëpp mi ngi daa feeñ seetlu nga ne mu mi nga kon xam-xam yi mi ngi fi woon te suuf it noonu la woon maanaam tur bi ak mustalaxaat yi nekk fi woon waaye li nga xam ne moom lay wund mi ngi fi woon mi ngoog moo tax ñoom loolay seen jafe-jafe ci tasawuf léeg-léeg tur bi lay doon moom lañuy sikk wala boog yennat yoo xam ne nit nit tasawuf dañ koy def waaye boo seetloo yi ñuy sikk yëpp itam lu ci ne ñoom rek lañ ci wutal julit ñëpp ñoo ngi ñooma ci bokk bokk bokk bokk gis-gis lu ma ne tawassul bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam loolu yonent bi moo ko jàngale ak lu ma ne tabarruk barkelu man tawassul moo ñaan ci barkeb eh, yonent bi sallallahu alayhi wa wala ci barkeb kenn ci waa gaa yu baax loolu jullit ñëpp dañ ko nangu maanaam mboolem masahib yëpp dañ ko nong bi fi yonent bi jógee ba ñetti téeméeri at li ñuy tudde asalafu saalih foofu ñooñ mooy salaf mooy ñetti ñetti xarnu yu njëkk yi ñetti xarnu yooyu kenn amul ku ko ci ku ko ci dingat fi ne wala ko ci weddi xanaa ku mel ne ak ñi ko ñi ko féete suuf ñoo ko tàmmal dingat ak lañ ciy wax day wute ñoom seen biir maanaam loolu wërta nekk wërta nekk li ma wax baaraas seen digg ak tasawuf laa bëgg wax loolu masalam du masalam sax aqida masala faraiya la masala fiqhiya la tawasul bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam te loolu lu sax la xëy na bis danañ bu noppee rek yëpp dañ ci taxawaat bu sobee la indi xool lu ci nañu xool addil la yeeg yu dema noonu waaye ñoom ak lu mel ne barkeelu barkelu barkelu ci jeexiti yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu itam lu sax la am nañ ci addil la lu sax ci alxuraan la lu sax ci sunu si yonente bi sallallahu alayhi wa bind nañ ci téere yu bare bare bare itam ñoom it xëy na ñoom moom bokk nañ ci yi ñuy dingat ak lu mel ne tey loo xam ne moom ci Ibnu Taymiya la jëkke mooy xaraamal jóge fii tukki dem siyaara ji rasulullah sallallahu alayhi wa lu mel ne xeeti waxa bi ñoom siyaaratu al masjid nabawi dañuy bind seen téere yi waaye siyaaratu nabi sallallahu alayhi wa sallam loolu ba tey seeni addil la dëgëru ci wax dëgg yàlla te borom xoxo yi fuqaha yëpp mazahib yëpp dañoo maase ci saxal ne maanaam ñi ci gën a néew lu ñu wax mooy dañ ko sopp ñeneen ñi àgg ci wax ne sax lu war la mooy siyaare ji rasulullah sallallahu alayhi wasallam ba seete bunti fiq yëpp buñ jeexalee xaj dañ ci dañ ci boole ziyaratu rasul ziyaratu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma ziyarat rasulullah buñ ko siyaare jiwul kan kan ngay siyaare ji sallallahu alayhi wasallam mi ngoog ak yi ak yi ni demee ak lu mel ne tërëj ji masalan tërëj ji mutasawif dañ koy def maanaam yi dinaa ci taxawaat ci yeneen jamono bu ci ne ñu wutal ñu wax ci lu bare bare waaye masalan ñoom lii nga xam ne moo dox seen diggante tasawu lay wax ni mooy yeem wax ne ak lu mel ne tërëj ji tërëj ji mooy masalan ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci xaddisam dañuy gis ñëw mu ne ko wa abika wala wa abihi loolu day nuru ngiñ mu ne wallahi mu ne mooy wallahi te lool maanaam boo ko defee ci loo xam ni euh, bokkut ak xam nga boo ko defee loo xam ni ci biir ci biir suñu borom la tàbbi nga xam ne lu mel ne day màggalaale suñu borom tabaaraka wa taala mooy lu mel ne yonente bi wala kaaba gi wala yu ni demee loolu tërëj ji la ko borom xam-xam yi tuddee duñ ko tuddee duñ ko tuddee dégg nga am giñ giñi aaye giñ ci lu dul yàlla duñ ko tuddee loolu tërëj boobu nag ñoom wahabi yi ak ulama salafi yi ñoom dañ ko aaye de maanaam duñ maanaam dañ bokk na ci leen leen di jotale ak tasawuf laa bëgg te su ñoom ñoom fi ne imaam ahmad fi ne daa daganal sax nga wax wan nabi maanaam nga gën ci yonente bi imaam ahmad da ko daganal ci benn ci ñaari waxam yi waaye ñoom loolu ma shirk lañ ko jàppe moom gën ci leneen <laughs> lu ma yàlla kooku shirk fekk shirk buñ ko waxee mooy nga gën ci leen lu ma yàlla loo xam ne duggul ci màggal suñu borom tabaaraka wa taala lu mel ne yeneen xeeti ma laata wal usa wala yu dema noonu nga gën ci xam ne ñoom dañ leen a jàppe yàlla yoo xam ne dañoo taxaw fi kanam suñu borom xam nga احدا بالله نيار يبوكو فمن فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أمن فلان فما هني يعني مع الله بين آية هني يعني مع الله أحدا ولا تدعو مع الله أحدا هو مع الله أقبل الله نيار يبوكو نيار يبوكو نيار أنا مع الله دايما كيما يالا لا جو خوا جامار لو سون di def li suñu borom def am kattanam nekk jëmmi yàlla joo xam ne bokkut ak yàlla ji dara xam nga loolu moom amul loolu moom kenn gëmu ko waaye loo xam nag ci kattanu yàlla lay tabbi nga xam ne mbindeefum suñu borom mu yàlla fonk nga tudd ko ngir dëgëral wax loolu tëkkiidul xawli rek la la la la xaw a amee maanaam loolu ab borom xam yu bari wax nañ ci xëy na danañ ci ñëw ci yeneen jamono taxaw ci indi ci waxi lu mel ne imaamu Nawawi ak ñeneen ak ñeneen ñu bari wax nañ ci waaw loolu kenn ko tuddee alxalifu bi xeyrillahi loolu tërëj ji lañ ko tabi mooy lii lii nga dégg fii murid di ko barkeb sëñ tubaak loolu kenn mun loolu mën leen génn ci diina ji ndax loolu du du du xalif bi xayrillahi subhanahu wa taala loolu tërëj ji rek leen la ak yu demee noonu ak lu mel ne tey ñoom ki faatu daa man dañuy xaw a jàpp ne amul dara ci yéeg maanaam dem na dem na maanaam yëgatu dara li xaw te loolu bokkut ak li li moto yu fay jàpp ak rawatina lu bari ci ci kii mel na ne. mi nga ak lu mel ne kurus yi ñu yor ak lu mel ne kurus yi te kurus yi tam dafa am dafa am ci silaay yooyu yëpp dafa am ay tegtal xëy na danañ ci taxaw bu demee ba jeexal bunt bi danañ taxaw ci yooyu benn par benn ak yi ni demee ak lu mel ne tey masalan eh, julli ci jàkka joo xam ne dafa am ab xabru xeet yooyu yooyu ma masaal yi nga xam ne moo dox seen diggante ak tasawuf te loolu itam dafa am ci silaay te ci yonente bi sallallahu alayhi lañ ko roy mën nañ ni sax ci sunnaam lañ ko lañ lañ ko jànge ñoom mi ngoog ak lu mel ne tey wax sayyiduna lool nag lu ñëpp ci ñoom waaye gis naa masalan ku mel ne eh, benn baas dégg naa ci waxam joo xam ni kàddoom joo xam ne moom daa wax ne laa yem baxi wala xam nga loolu am na ñoom ñoo xam ne moom maanaam jëmmi biir julli lañ koy aaye wax sayyiduna muhammad maanaam taswidu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam loolu kàddu benn benn baas boog am na ci ak yeneen ci ñoom yoo xam ne yaakaar naa mi ngi sax ci internet bi boo gisee boo boo gëstu alwahabiya wa taswidu annabi sallallahu alayhi wasallam da nga gis kaddu koo xam ne kaddu benn baax la léegi nag wax sayiduna muhammad loolu dara nekku ci sallallahu alayhi wa sallam ndax moo wax ne ana sayidu wala di aadama ak yeneen dalaay lu addila yu bari yoo xam ni dañ ko ci tegtaloo maanaam yooyu nag kon mooy masala ak lu mel ne tey yeneen masaayil nag yoo xam ne moom yu gën a dëgër la xam ne moom ci wàllu euh, euh, lu mel ne tey seen digg ak asaira yi lay tàbbi ak masayil tawxiid yooyu yu demoon noonu léegi nag ñoom kon loolu mooy seen jafe-jafe ak diggante suuf waaye yooyu warta nekk jafe-jafe ndax lu ci ne ci yi ma wax ni mutasoo yi fay am nañu seen tegtal maanaam mutasoo amul lenn lu ñuy def waxuma nag nga fekk benn waay ci mbedd bi nga nekk kii ab suufi <laughs> waaye mutasoo mooy ñi nga xam ne ay suuf yanke la ñu wér dañ xam leen ci eh, te ñi boroomi xam-xam maanaam mutasawwifa yi bu ñëpp amul xam-xam ñu leen di jiite ñëpp ay borom xam-xam lañ la ñuy def ni lenn lu ci juyoog alquran nag sunna si amul lépp ci ndax fi ne tasawu da cee bokk ci sart yi usuli tasawu da cee bokk dégg nga al iqtidaaw bi rasulillahi sallallahu alayhi wa da maanaam ngoy ci sunna si yonte bi sallallahu alayhi wa bokk ci usuli tasawuf waaw al i'tisaamu bi kitaabillahi wal iqtidaaw bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam loolu dafa bokk ci usuli loolu moo ci jiitu sax bëgg sëñ bee way ñaar yooyu la jiital maa ngoy ci alquran ak sunna loolu moo ci jiit moo tax ñoo amul lenn lu ñu def maase ko te muy loo xam ni lu juuyoog alquran la mbaa sunna si yonent bi sallallahu alayhi moo tax masaayil yi boo gisee ñoom dañ ci dañ dañ waxtu dañ leen ci leeral seeni i taxawaay di ci tontu di ci wax yaakaar na mën nañoo xaw a taxaw foofu bii di ñëw nag ñu àggale ci xukmu tasawuf Eh, mu am na keroog sëñ boo xam doon laaj laaj bu jëm ci wàllu wallu moom fiq la yaakaar laaju fiq la mooy ki wax ne masalan boo doon julli seen kaamil bi daanu ndax da koy da koy da nga jël wala boog da nga koy da nga nag man li ci xaw a jàpp la ñaar yi xawoon am naa jafe-jafe jafe-jafe ci tontu ci mooy xam nga kamil bi daan moom suñ bi na bay muy daan <laughs> te len am na maanaam jëf ju bari itam dañ ko aaye ci moom day yàq julli gi ju bari ju bokk ci julli gi ngeen ko xamee yéen yëpp day yàq day yàq day yàq julli gi moom dafa bokk ci mubtilaatu salaat moo tax lu mel na daal li ma ci seetlu mooy moom waaye damaa seetlu ku mel ne borom alfiqhul maliki fii thawbihi aljadid téere bu am solo la ki ko def Mouhamad Bachir Shafaqa Shaqafa noonu la tudd téere bu am solo la juróom-ñaari xaaj la alfiqul maliki fi thawbil jadid bi muy indi mbir yi nga xam ne du yàq julli da caa boole ñaar mooy masalan tey ni ngeen ko xamee rek te loolu mi ngi ci kutubu fiq maliki yëpp mooy mooy rey ak jiit jiit jiit tey boo ko séenoon boo doon julli moom yàgg nga mën nga koo rey xam nga maanaam boo ko séenoon mu wut si la man nga for fi aw xeer gaaw <laughs> dur ko te agale sa julli lolou du yak julli nga xam nga bokk nañ ci dem yi nga xam du yàq julli moy tay bo doon julli sa sa li nga tak ni sa ndig rot man nga ko for sax ci suuf fi na takkaat gaaw sa ndig <laughs> lol nak lu mel non tay yakar na ginnaaw lol may nañ ko bo de bo gisee kamil bi rot boko mané mënee gaaw fexe ba lijjanti te di lijeenti kamil bi tegaat ko ci gaaw te do def lu jëf ju bari dal jo xam day ag ci man yaq yàq julli gi yaakaar na loolu du ci ne ci lima japp waye ki julli nak da wara lijeenti ba fami julle yoyep da ko wara lijeenti njëkk fene tay yi nga denc sa poste sax dañ la wax nga nga tag nga tàqaliko ak mom bala mala eh, manam soxlaal wala si julli gi moo tax ngay julli yoyep war nga ko lijeenti kaamil yi nekk ci wet gi tam nga fex ba tegaat leen bu baax ba ñoo daan ndax julli mom fi ne tay waroo yik sax kamil bu jall bu da bu daana fi ne al siti wut nek ci leneen luma yalla fi ne sa sa sa xol sa sa beuti dang ko war tek ci fa ngay sujjoot rek loolu nak boko defé defee daanaka gis kamil bu daanu xam nga <laughs> loolu way li nga xane man na ko ci wax mën ñu taxaw bu amé ben laaj wala ki yakana ndax tay dana amat itam mbokk teel bi xamne ñew ngir jangal nu qasida loolu ñu ci sant yàlla bu baax di leen ci sant di di ñaan itam niñ ko defoon keroog rek ku ku ku mën a diglu nga toog diglu ko yaakaar naa bu amee bu amul benn kii mën nañ mën nañoo mën nañu kii waaw benn benn la te nga kon te nga ko bàyyi ba rek bu <laughs> dee ñetti laaj bàyyi ba rek te bayal baax bayal kon baax na kon nañ nañ nañ jàng xasida muy ñaan gi dégg nga buñ fekk nga toog bismillah baana li man lahu maqulu anna wasilati huwa rasul كوني لخالق البرايا آية الحمد لله الذي صرفني بلطفه عن بدء لسنني أشكره جل على الكتاب وسنة البيداء والصواب أشكره على فروض وسنن ثم على خير الحمى من المنن أستغفر الله الذي يجري الخدا بإذنه مما جنيت ومدى أبايع اليوم رسول المصطفى بخدمة وأسأل الله الوفاء أعاهد الله على أقصى الكتاب بخدمة للمصطفى باب الصواب ولا تحتوي الأقل مسايح ما لم تدم شبرا على الرسائل